ñoom ay force occulte fii kenn amul force occulte ñoom ñoo ko am. Eh. ñoo am ñu ñoo ñu ne ci suuf di leen dimbali dëgg la. Eh, kii kii kii kii nee na Mamadou Mbodj Diouf euh, membre du bureau politique du PS nee na meilleur choix bu Macky Sall mën a def pour euh, euh, Benno Bokk Yaakaar mooy mu investir candidat boo xamante ne ci PS lay jóge comme kan Chérif Chérif ba suuf candidat mel ne nan comme kan <laughs> parti socialiste ñoom itam ñoom ñoom it. E, parti socialiste ak AFP e. xam nga ñàkk ambition. weesu wu ñoom. Mm-hmm. ñoom yàlla dogal moom. ñoom kuy seen candidat ñoom amul sa candidat waaye rek ñoom amul candidat. Ah. Ah. ñoom da ñoom xam nga mënoon nañoo am sax candidat ne Ablaye Wilane wala Aminata Mbengue Ndiaye. waaw ah, kooku nga tudd tamit dégg naa turam de. ñu ne. moom Wilane Wilane Wilane. Mm-hmm. Mm-hmm. Wilane dafa demoon Màkka taxaw ci kaaba gi ne daa bëgg a jiite réew loolu moo tax ñu ne dafa bëgg a nekk candidat. Mm. mais parti socialiste génnee candidat yóbbu ko ci taabalu Moustapha Niasse teg kon day seenagul AFP Moustapha Niasse ki boppam moom mi nga xam ne mooy gérer candidat yi. mais xanaa moom kay moo war a njëkk a daw kay wut nit moom it ñëw teg yow yaa ngi àtte ay nit te yow sa parti ci boppam ne ngeen amoo leen candidat. yow ci ay parti historique nag ñoo xamante ne ñoo am hmm. tradition am histoire ci réew mi. mais Macky xam ne dañoo war en fait participer. ne serait-ce que pour l'histoire Macky Sall la yàlla may. waaye mu nekk parti au Sénégal sans le parti de de de Mamadou Dia. sans le parti socialiste de de Léopold Sédar Senghor. <laughs> sans le parti socialiste de Abdou Diouf. de Lamine Gueye. de Blaise de Blaise waaye ñooñu fi ñu tëdd am nañ leen naqari ñu ne déedéet waay ces socialistes là ñooy dem di soutenir un libéral. bu doon keneen sax mooy kii. beneen socialiste sax ñu ne ñoom day ñoo ko doon xeex seen biir la mais dem jàppale un libéral bu tudd Macky Sall Ahmed bala nga dem lu ma ci jàll mooy lan mm-hmm. yolleeku de moom ki tas ki tas <laughs> alors ki tas ki tas say jàmbur ah. ayow ki tas say jàmbur mm-hmm. yàq liggéeyam mm-hmm. génn ko réewam du la bëgg ba yomal xam kon Macky Sall bu dee fekk socialiste yi nga xam ñoo fay ju Abdoulaye moo la fi jëlee mu ñëw boot leen waaye dañ koy kat màttkat bi maanaam dañ kon dugal bu mu ba tëmb ci biir ñoom nekk tëmb ñuy déggaale mooy li kii wax socialiste ak libéral lañ ay nawle lañ ne rek ma dafa fu ñu yem du ñëw bëgg ba yow a xam moom nag heure bu def ndax dafa ñëw ne bëri ragal nen ñoom nag comme ñu am nañ am na expérience ak doon ko du benn. waaye ñu ndaw ñee wax rek waaye kilifa yi nekk ci kaw. léegi nag ñoom dañoo ànd ko kii wax rek. ñu ndaw ñee tane. xam na la. gis nguur nguur gu jeex mu sëy bu tasa yem wàccal dem mbaam mu alag la rek sama baay nee na booy sëy ba bëggatuñu la ñett lay xaar. Hmm. bàyyi ndaw si dem. benn. maa nga toog muy def loolu naqari. ñaar. mbaa mu posone la. booboo gën a ne bu métti bi ngay mujjee boobu moom day suus di métti. d'accord. waaw sëy moom sëy moom bu jeexee rek jeex na rek bu bëggatul bëggatul rek bul jéem a forcé <laughs> surtout jigéen bu bëggatul. yow eh. takkal koy bagaasam ah. ne ko demal. ma mu dem. nuyu ñu Amadou Mame Yamb Diop. <laughs> dëgg la. soo ko moom daal seen candidat man sama yoon nekk ci daal. dañ tànn ku leen neex sama yoon ko xoolee Macky Sall am na confiance ci moom. ah ko jëlee def ko président de l'Assemblée. ah wax dëgg yàlla. waaye nag ba tey choix am kenn xamagu ko. Samba ko njaamu njaamu parce que président de l'Assemblée c'était comme ça sa troisième candidature. dañoo xëy rek euh, mbir yi am te kenn euh, kenn yëgalu ko kenn. Euh, leneen. pour ma dugg tuuti lu sama yoon nekkul. Amadou Mame Diop am na lu ko doy. assemblée nationale am ngi mënu koo régler. lu dul suspension de séance. man yaa ngi dégg ndagam assemblée nationale am penc la nag am penc yu dajale yu dajale ay député mhm. nga am jafe-jafe réglé ko réew mi réew mi du ay caaxaan na koy yore surtout génération bi ñu tombeel nii dama lay wax mhm, mhm. xale yi danoo teel a pare xale yi danoo ñor xomm xomm xomm xomm xomm xaaruñu ku leen witti mu ngi ci suuf daanu nañu ba noppi récolte bi def nañu ko ba pare dama lay wax. xale yi nekk ci réew mii gis nga c'est-à-dire kuy politique te amoo lecture. ci Sénégal ni muy doxee. ak mentalité bi ni muy changé. loolu mooy ne kon yow réalité politique ba tey am na loo ci manqué d'accord dafa am une réalité kii est là. Mm-hmm. réalité concerne le peuple et quand on la politique. pour gérer un peuple il faut comprendre ñi ñi ci ban xeetu mantalité la ñu ne. Mm-hmm. seen xel seen xalaat yi ci lan la toll. Mm-hmm. yéen nii nag du nax kenn nax sa bopp la. parce que dëgg gi mu ngi fii kenn mënu ko fee dindi. Mhm. de toute façon man ñoom candidat bu ñu tànn sama yoon nekku ci bu bëggee dégg-dëgg dama doon ñàkk maanu rek. Mbadou waaw mais sama yoon euh, nekku xam nga Karim Wade mu dem de wax dëgg yàlla moo ñu yónnoon oto bi tàkkoon. waaw. seeti blessé yi. dem Medina seeti ñi gaañu ñu ne am na daal. Mhm. masawu ñi nga xam ne bii mooy ki nga xam tàkk-tàkk na. Mhm. mooy transporteur bi. ak lan kii blessé yi nekk ànd yarax ak mhm. euh, décès yi nekk fële ci kii bi. en tout cas daal comme li ñu wax rek yàlla moo xam ëllëg kii ñëw kan la ñu ko Paasan waxee. Mhm. mais yàlla fekk mu mu mu mu mu gënal Sénégal. mais li ma li ma jaaxal mooy ku yaakaar Sénégal moo woon ak mi ak mi jëm du benn. du benn de. dootuñu muñul mais sàmman yi dem ba. Mm-hmm. ku ñëw indil sa pro bu leer te dëgg na dëggu. Mm-hmm. ndax euh, la ma xam ne la la sama ba sama maam daan muñ bàyyi muñutu ko. Mm-hmm. man sama doom du muñ mais sama sët yi ñëw du ñu muñ du ñu xaar te ba pare nag fees dell xam-xam mën a yor réew comme yow. kon looy indi nit rek yàlla na fekk mooy. ressource bi gën Sénégal. nañ mhm. Sénégal gis seen bopp. Mhm. Mhm. jamaa beeg or beeg pétrole bi nañ Sénégal gis seen bopp su ko defee daana yëpp wàññeeku. Sénégal yi moom fexeel ba yor seen sécurité ak seen pañu ak seen njàng ak lu am denda seen poos waaye jël li fi réew mi di ko di ko jébbalaate moom moo jeex Afrique sa far. kon loolu ma di wax nit ñi langage vérité moo am solo. wan la woon woni na tàccu moom kenn dëgg dëggut ko tàccu. déedéet ñi ñu amatul gërëm naa bi ñu tàkk war ko ci jàng mais lu tax ak ku koy taal kan la kan la koy taalal bi maa àdduna xalaat la ba fin. Hmm. mais ko nekk di xaran di nelaw. fekk hmm. gars yi yow nañ bu yàgg dem sa ñoom. akay dëgg. bi maanaam loolu rek la war ne àdduna bi situation bi mu toll mooy que ne. Mm-hmm. nañu ba bañ nekk ay noonu suñu biir. Sonko mii nga xam Ousmane ñu mën a fexe moom génn ci jàmm. Mm-hmm. loolu dëgg. ak pexe bu ko génnee. Mm-hmm. te nit da ko fa dugal génne dugg fa malaaka dugalu yàlla. yàlla nattu yàlla mais yàlla nee nag loo gis lu ne mu ngi ci loxoy doomu aadama. Mhm. sabab bi mooy kon ne ñu def mel benn bool wax naa ko bëkk dem. Mhm. a passage mun naa mën a ko langage su Yewwi Askan Wi ne kon nañ changé communication ak comportement bi. Mhm. parce que ki nga séqal yërëmu la yéenewu la bëggu la. mais aman nag yeneen yeneen rawafit yooyu jaar ba ba maîtriser ko te bal du jóg bal du ngi fi. yéen tamit xam ne ba muy xeexee ba muy xeexee. dafa dem xam ne ni jël jaase dootu solution mu indi tactique ak moral d'accord ba am li mu bëggoon foofu lañ daa bëggoon nag Sonko toog fa mm-hmm. dem ñoom ñu naan mi ngi xiifal mën na noo xiifalul ko naqari mm-hmm. gis nga as gor dara xañ ci moom lu jàmm mm-hmm. d'accord bi ma ñi ko daroon ñëpp ndeysaan amoon naa xam ne ñii ñoo may gunge ëllëg réew ma changé ko mais ba mu dem ci biir mu am ay benn benn yoon lekku nang moralement dafa ñaaw de dafa ñaaw de. ak de ak lan programme bi nga xam ne bii ba tey mi ngi ko téye. mais jullit jullit la. Hmm. mais gor la. xiifulu pour ay naqat déedéet li ko def mooy dafa am xam nga gor su ne boo amee iman am ixsaan. Hmm. bëgg yàlla ay fen xaju ci yow bu ñu wóoree da ngay dof da ngay kooku nit yàlla ay mel noonu. moo tax hmm. ma a ko lii ko am ma ne ko jàppee ko nattu yàlla.